jaajëf Ba kon nañu xam ne gis nga Tchad manifestation douze heures de temps c'est plus de cinquante morts douze heures de temps lañ def manifeste plus de cinquante morts loolu mooy violence mais fii au moins am nañu benn benn sens de responsable suñu force de sécurité yi des fois nag am ay am ay am yeneen yu xew yoo xam ne ci biir yooyu lay xew ci ful lay xewee kon ñu ngi lu ñëpp di leen remercier di kontaan seen plateau yu mel nii te xam ne lu dul jàmm-jàmm moo ko am na ay nit yoo xam ne ci conflit la ñuy dund conflit rek la ñuy wër pour dund ci mm. ñooñu nag duñu wax luy defar réew jaajëf Baara jaajëf euh, Baara muy chroniqueur foofu ca fi